teraanga ak ponche la fekk baax seetaanin seen programme ak boisson ponche yi di teral gan yi ak di seetal xol ak ponche rek teraanga fii la fekk baax. ngeen trop xamal nag tàng xamal la <laughs> eh yow kii eh, yéen yow kii du man. waxal nànk waxal nànk waxal nen yi jeex na. kër gi dañuy neenaw waxal nànk. nen yi jeex na xam nga ni bi ma ñëw dama dama àndaale benn benn lëf de poule ah nga gis ma yor dafoo jënd jàpp la. eh ma xay ma sama xaalis. kaay kañ ñëw dindi eh eh lu may def nii. xel mi neexul mais day bëgg di ñëw fi di ba ñaan xaalis ak lu def ko eh, déglul déglul eh, xam naa la may njëkkantu yooyu danga koy def sama rob eh, lan la lan la ah doo àtte dëgg aw doo doo àtte dëgg yow kii mën mën mën na nekk sa doom wala sa jabar la ñëw bëgg maa engagé lan la la laaj lan la man yoon nekk ci man mu ngeen ma def may fay maa am ay mbokk kon yéen loolu lañ jotee nga naa ma da am mbokk waay waay waay fën see ma ma xam fën see ma ne la engrais. wax naa la ko nee naa la xel mi neexul nga. xel naa la wax ko bàyyi kat defal nànk defal nànk ak ah, dóor ma. mais moom lan lañ ko def ni ko lan laa dama kaa laaj lan woo ma loolu laajte woo ma loolu. fii ñu ne nee na fi ne. da ngay tëx tëx lu ma la yaaxoo tey. waaye yow bu fii man nga may rek ma respecté. xaar eh, xaar defal nànk defal nànk bu fekkee da nga koo tooñ waxal mu man moo ma tooñ de man. Pape Mbaye ah déglu tax kii moom boo waxee. sérieusement da lay dégg boo waxee haute voix du la dégg jànguma karaté non baax baax baax Pape Baye man yow yaa ma yar yaa ma yar loo leen jotee loo leen jotee mu ngi noonu loo leen jotee kii sàcc la traître la man amay jaay ay ay ay ay lëf de poule waaw waaw dafa addim benn benn benn xale bu jigéen bu bu bu xees mm-hmm. chaque jour mu jox ko tablette nen tey tey ji laa ko mu jee jox vingt-huit tabletu nen chaque jour tabletu nen chaque jour tabletu nen yaay mbaam. mbaay yow chaque jour tabletu nen moo koy leble yow it. yow tamit yow ah, loolu naka ko mën a leble loolu moom la ndax dafa ñëw ne moom dafa am xaalis. gelem bi xag du na koy jox tablette nen. léegi xam nga nooy def bu avant ñëwee demal bu guddi nga ñëw avant fay la. ah demal demal mu ko def. suba. amal noppi nag man yaa ma yar man du ma sax yaruma la yarum eh, ngay am sàcc ba mu waxatee eh, yaruma la ma nopp la wuy damaa juum man dama lay fàtte wuy ma xoolal damay nga bàyyi la. Ah, da lay fay. père man moom fu ma demee noonu day yomb. dina ay yomb kii ok ok ok ok ma eh, dugal fii ah, père bàyyi di dugal fii de c'est sûr que ne Abba dina ma fay. yow kay bul jaaxle. wuy ma mm-hmm. wuy ma wuy ma. Mm-hmm. yow suba teel a la ñëw rek mu jox la dégg nga. Mm-hmm. teel a la ñëw. jël fi clando eh, yow da ngaa yor mu naan jël fi clando kii ëpp la xaalis xob nga naan jël fi clando. booy eh, demal na demal na bàyyi wax ji. booy ma ah? maa ngi a dem dëkk jëm na ko ah booy. poul day boole poul bi bu abaa ñëwee. jox ma ci mii laa jëm. non ah, da jox da lay xanaa man maa dàq daal abaa dina la jox. Ah, yaay dugg ci lu ne. waa booy ñu waxtaan en tant que ak morom bi ma laay la biir booy fen yi nga nekkee lan la. Eh, noppi. <laughs> booy naka nga mën a jëndee ay nen di ko jox xale bu jigéen te sa ndey toog fee ca kër Moussa sonn xiif toppatoo woo ko lijjanti woo ko di financé jigéen bàyyi sa ndey mu xiif yaa ngi nii sol sa mbaa ji mi jëndoo bëri jëndoo dara lu xale yi jigéen bëgg nga dox ci. sama yaay doyoo ko dara doyoo ko dara. yow jigéen na la gën a sa xam nga rek. biñ ko ba ko def si xale bu jigéen bi. ci xale bu jigéen bi sama yaay da koy def ci da koy def ci turam mu dem la. nee ah, ah, ah Akim na lépp def ci turu yow nga jël def sa turu gel. sama yaay dama ko mos a essayé ko si turam. saa yi avec ko. ko <laughs> def ko avec. jërëjëf. jërëjëf naa la tey moom danaa jox dix mille francs. baax na baax na mu sa dara. bëgguma sa dara xam naa sa yaay yaay Akim yi am nañ différence sa yaay nga jël compte def ci moom mu nattee ko jërëjëf dafa naan dafa ah kër goo xam ne kenn mënu fee seetaan télé ah eh dafa eh taxaw kii lu ah, yow lan du ñëw rek sonni nii du bu dugg yow nag woote yàlla gën bu nit yow lu tax keroog nga ñëw fi ñu iril la ci xel mu sell nga toog fii ma jàpp la grand franc ma ne la xaaral ma dem woote safar nga ni picc daw foo wax nga ba pare. mais yow papa mën nga sos de danga ma gis man. yow toogoo ci salle bii. man ma dem fekk ñama xit di nelaw ma woo ma yee ko ni ko kaay sa jël bi yow nga ni du yow. du man da nga juum man maa fi door a ñam te ñama moo ma indi. mais yow mii ñeme nga yàlla de. yaa ñeme yàlla yow mi may sosal. yow toogoo ci salle bi fii yow. eh du man. yow nga ni toogoo fii. papa du man. ah xale jigéen léegi mën ngeen fen wuy ma xam nga lu bëgg a xamal la. Hmm. Euh, beneen bi topp comme nee nga du yow du yow d' accord. waaw garaawul d' du yow beneen bi topp mooy ñamaxit xale bu ndaw la. Hmm. nga jàpp ko di ko exploité nen yi nga koy jëlloo te mënu koo fay laa bëgg mu dakk baal nen yi ngay jëlloo booy bi ah. Eh, ah. sama sa sa ay nen la liggéey. yéen yéen de bu dugal seen waajur yi yow lu toll ni ay nen nga xam sama ni ay yondaay la di ci osé nen lu ci ne sa yaa liggéeyul dara loolu ay nen. ah bu ko joxee damay jël sama liggéeyu ndey la di. sa papa éleveur la woon moo tax xam naa am loolu doo ko mën a comprendre ndax ay yarkatu ginaar ngeen ku la xool xam ni buti ginaar nga yor léegi lan la lu sa problème abandé fi. yow nag da ngaa ëppal xamoo sa bopp. kër yow yow lan la ngay ràppi ràppi doo yem. kër lan doo yem yow. gis nga sama vie privée ak li may def sama vie man la concerné sa yoon nekku ci. Mhm. bu mu ñaax de sa sikkin dee ko peñe tuuti. non wuyu nga léegi abaa nekku fi demal. seetuma abaa ñama xit laay seet. moom tamit fi gën a eh, gën. taxawaalukat bi bëgg góor mu jël sama motuwaay. caabi sa wóor Bine que Josetan c'est un programme à Boisson Punch. ak Punch rek teraanga fii la fekk baax.